Euh, Charles Euh, bon la phrase classique mooy wax sa bopp dina jafe. jox naa leen ay éléments de biographie yoo xam ne xam naa dinañ ci ñëwaat. Euh, mais man benn ndongo daara lay jàppe sama bopp moo tax ma ñëw ak as bi tey as Abdourahmane bi moo xale yi nag commencé nañ ma tooñ quoi ne nañ ma da ngay tebbi sa carte sànni sa as. ah loolu mooy doon slogan slogan 2023 tebbi sa carte. Sànni sa As voilà. très bien boobu moo fi nar a xew 2024 incha allah. donc euh, tur boobu d' ailleurs ci loolu laay commencé. Mm-hmm. man ki jàngal alxuraan sama papa lañ ma tuddee. Mm-hmm. kooku moo tudd El Hadj Abdourahmane Sarr. Mm-hmm. Euh, dëkk Mbour donc toute la famille de Mbour Ngekoox zone boobu yëpp Sareen maa ngi leen di nuyu. donc Abdourahmane Sarr moo jàngal sama papa alxuraan euh, yàlla dafa dogal bés bu muy def un an ci suuf il est décédé le 31 janvier 1969. man ma juddu le 31 janvier 1970 ñu tudd ma ko. Mhm. Mhm. sama pàpp nag jàpp ma comme koo xam ne dafa war a am ay ngandum xam-xam yooyu. <laughs> voilà moo tax éducation bi rigoureux ma juddoo Tëngéej à Rufisque moi je suis un natif de Rufisque. Ah. dinaa ci ñëwaat bu ci kanamee mais ci Rufisque fi ma dëkk mooy Médine quartier Médine donc on dit que fa laa juddoo mais en réalité maa ngi juddoo ci beneen quartier maa ngi koy expliquer d'ailleurs sama livre quartier boo xam ne mu ngi tudd Thiawlène Thiawlène waaw voilà waa Thiawlène tam maa ngi leen mm-hmm. euh, li ci intéressant comme anecdote mooy man je suis né en 70 70 fekk Sénégal am na indépendance mm-hmm. Rufisque c'était quand même l'une des plus grandes ah. villes du Sénégal mais pourtant man je ne suis pas né à l'hôpital maa ngi judd ci benn néegu matron ah. matron boobu mooy mère Rokhaya Faye ah. voilà loolu mooy ci particularité bi suñu taaw mu ngi juddoo ci hôpital toujours damay laaj sama yaay bon mu ne ma c'est les hasards du destin mais man bi ma waree juddu ci benn matron lañ ma yóbbu maire boobu moo tudd Roxee Faye donc ci néeg boobu laa juddoo dans le quartier de Thiawlène Thiawlène keroog bi may def sama déclaration de candidature maa ngi ko defee quartier boobu Thiawlène et avant may dem ci déclaration bi dama dem ba ci néeg boobu maire bi dëkk maire bi nga néeg bi nga xam ne moom laa juddoo oh. dama dem ba ci néeg boobu mhm. fekk fa ay sëtam ñu waxtaan ñu ñaanal ma ma dem def mais loolu la doon représenté pour yow xam sama bopp xam sama yoon Euh, revenir at sama histoire loolu mm-hmm. dinañ ci ñëwaat man dama doon koo xam ne dama bëgg ay repères dañ ma ko sax dañ ma koy sax reproché jàpp ay date mm-hmm. xam man maay kan xam ay phénomène xam ay symbole donc le fait te loolu ñi ko am bariwul ah le fait mm-hmm. que ma mën a dem ba identifier précisément néeg bi nga xam ne falaa laa juddoo ñi am chance boobu bariwul donc pour man loolu c'est un pan de mon de mon histoire. Mm-hmm. et dafay tax aussi ma xam kan laa. parce que bon man métissu sénégalais la de père séeréer Safeen dinaa ci ñëwaat di Kignanbour. Mm-hmm. ak de mère lébu. bon lébu yi nag ñoo ma yar donc Tëngéej laa gën a nekk que Kignanbour. mais je suis aussi séeréer Safeen boo xam ne je baragouine un peu quoi. Ah meluma meluma comme yéen nga xam ne da ngeen dégg. <laughs> déggoo ci lu bari da ngeen dégg carrément. Mm-hmm. voilà donc kooku mooy Abdourahmane Diouf donc j'ai aujourd'hui 53 ma a jàng que école française parce que sama papa oustaz sa Diouf maa ngi koy nuyu moom nitu daara la moom mhm. jàngul français daara la jàng bi mu ñëwee euh, jógee daara Mbour ñëw Rufisque installé fa en 1962 mu créé daara 1962 gis ngeen fii ngeen jàng maa ngi gis photo bi d'ailleurs ngeen koy mhm. projeté mhm. gis nga ki nga gis na le à gauche mu sol sabadoor bu weex bi d'accord ak karaw bu bëri bi na waa kooku man la ah. lii sama classe arabe la ci sama daara pap <laughs> voilà gis nga gis nga samay élèves ñoo nekk nii man maa nekk nële li c'était en 88. 88 mooy année blanche bi. Mhm. donc 88 année blanche bi mooy boo leen fàttalikoo Ablaye Wade. bi mu demee élection ak Abdou Diouf mu am problème donc dañ daan xëy suba. dem dàqanteeg policiers yi grève yi policiers yi gazé ñu donc gazé yàgg na ci Sénégal rek. <laughs> waaw policiers yi gazé ñu. mais bu ñu paree ñëpp ñibbi man damay dem sama école papa je la classe. donc lii sama classe la woon là j'avais 18 ans. nga leen di jàngal alxuraan di jàngal alxuraan donc am na xale yu bëri yoo xam ne. Rufisque daara la woon ñaar yëpp la en fait dafa am daara am classe c'était les trucs par exemple ñii bii classe normal la man daara bi daawuma ci jàngale en tant que tel. Mm. mais ci laa ci laa ci laa ci laa yaroo. donc après lañ ma dugal école mon père a eu la présence d'esprit. bi ngay daataa dugg école wàcc nga alxuraan wala. déedéet wàcciwuma man nag xam nga dama amoon benn côté. moo tax ma koy junju sànq bi may wax sama turandoo papa bi dama amoon benn côté rebelle benn côté rebelle boo xam ne ba tey nii moo tax sama waa kër ñoom ñëpp maa ci gën a gàtt àlluwa ah. waaye nag jàng naa ci li ma war a jàng hmm. mais dama dem bi may def euh, niveau entrée en sixième laa am benn niveau boo xam ne mën na permettre ma wax tax ma wax ne mën naa alxuraan euh, donc sama papa présence d'esprit bi mu am ci loolu laay insister mooy dugal ay doomam école française hmm. alors à la base c'était pas sa conviction. Ah. coow li bu daan xaw a bari nga def benn erreur wala benn bêtise kër gi la sanction wala la menace mooy maa ko def sax man mi leen dugal école. Mm, mm, mm. bu démb doon tey du ma leen école. bon parce que nag dans la maison on a eu mes oncles mooy sama frère yaay yi maa ngi leen di rendre hommage ñoom itam dañu insister ñoom jàng nañ france dañu insister pour ñun ñu dugg école. alors que ma mère qui la seule fille de sa famille frère am yëpp jàng nañu école ba mu des moom. moom duggul voilà c'est-à-dire que ñoom ay lébu Rufisque lañ donc ils étaient dans la ville sama maam boobu Alioune Mbengue dugal na ñëpp mais puisque sama yaay mooy deuxième bi ñoom dañu jàpp à l'époque ni jigéen du jàng man moo tax sama papa jàngul français sama yaay jàngul français. Mhm. waaw waaye ñoom ñëpp ci mbirum daara ak mbirum alxuraan dañ ci am xam-xam tegtee ñu ci. mais mais sànq dama dégg da nga ne da nga nekkoon xale bi nga xamante ne rebelle la. Mhm. donc ça veut dire euh, euh, dañ la doon wax yenn saa yi nga jël alwa nga nga bañ pour bëgg def yow li la neex. man dama dama dama teel a am esprit indépendant visionnaire jéem a gëm ni nit ki épanouissement bi nga war a am si sa ay propre choix la war a doon. Mm. loolu bu ñu ci duggee débat bu rëy lay doon. parce que gis nga dañuy wax naan on revient toujours à sa première nature wala on fait le contraire de ce que l'éducation vous a donné tey par exemple man sama kër sama kër kër gu gën a démocratique sama kër amul ah samay doom ak may déglu <laughs> parce que pour man ñoom dañu war a def li nga xam ne moom la ñu bëgg moom lañ gëm alors que man j'ai grandi dans un environnement boo xam ne am na lu may gis mais dafa am fu ñu ma bëgg jaarloo mhm. donc loolu dafay nekk un conflit boo nekkee xale nag doo xam souvent yooyu def choix mhm. je donne juste un exemple juste benn exemple boo xam ne je l'ai répété toute ma vie man j'étais très fort en vitesse mënoon daw je me rappelle bu ñu daan def ay composition 60 mètres mais dama ko daan def ay 7 secondes di jël toujours mhm. première éducation physique parce que j'avais une mais le jour où je suis sama maître d'éducation physique daf ma bëgg a yóbbu saltige pour ma def 100 mètres mais je veux dire déjà j'ai hésité 3 mois avant dem wax ko sama papa mais bi ma koy wax papa paa bi ak bi may génn néeg bi ay daw laa fa jëlee alors que peut-être waroon naa mën a nekk athlète parce que j'avais des prédispositions euh, vis-à-vis de ça bi ma amee BFM par exemple gars yi ay série A ay série D man dama jàpp ne économie laa war a def xam nga ba tey ñu bëri ñu ngi may jàpp ne économiste la xamuñu ne juriste la mm-hmm. loolu dafa yàgg ci man parce que dama am BFM war a ne man économie laa bëgg a def économie à l'époque série B moo koy def mais amul Rufisque man ma dem jël xam nga rek jeune adolescent euh, sama demande d'orientation bind ci Kaolack bind ci Saint-Louis <laughs> dem déposé ji déposé ba pare ñëw war ko sama pap <laughs> waaye dafa ma delloo ma jëliwaat orientation bi xotti ko bon c'est pour vous yooyu yëpp c'est des petits conflits idéologiques yoo xam ne dafay am ci famille yi mais nag li neex mooy tous ces petits conflits là ça devient très très grand amour. Mm-hmm. boo demee ba dépasser mm-hmm. Mm-hmm. période boobu noonu. <laughs> donc après j'ai fait l'école à Rufisque l'école primaire. naturellement à Rufisque li école bi ñuy wax école Sofac fa laa defee deux ans primaire ñu toxu. parce que li ma lay wax ni yëpp début bi on a grandi dans la grande maison familiale mooy sama kër ñoom yaay. bon may nuyu sama ñoom maam Marème Gassama samay oncle ñoom Babacar Mbengue ak ñi fa nekkoon en am kër. ñu war a joge nag Médine dem toxu ji Colobane Guy Murit voilà Colobane Guy Murit mooy quartier bi Sococim nekk mhm. ma leen di nuyu ñoom ñëpp aussi dinaa ci ñëwaat d'ailleurs mooy arrêt kii am na benn théâtre kat bu ñu fa jox arrêt waay arrêt kii Baye Eli Baye Eli foofu la dëkk Baye Eli effectivement ñoo ñoo ñoo Baye Eli effectivement ñoo bokk koñ <laughs> c'est ça donc un jour de match euh, Argentine Italie maa ngi koy wax ci livre yi xam nga man nag football dafay def samay repère samay vie parce que je retiens toujours les grandes dates coupe du monde bi di bëgg a ñëw boobu maa ngi CE2 non CP sama onk yi dem ñafe góor góorgóorlu ba indi télé bu bees tax ci kër gi donc ma dëkk ci kër gu am télé lu ma mosul am dix jours après ñu ne dañuy toxu Colobane war a bàyyi télé bi ci kër gi dem taxuñu Colobane Goumbry non mais coow loolu kenn mënu ko woon donc le reste de la coupe du monde seetaan nañ ko parce que après suñu kër amul woon télé mais bon ça c' est des d' enfant yoo xam ne daf lay daf lay ah, loolu je pense que ñu bëri dund nañ ko wala dem jënd sa kër dëkkandoo pour mën a seetaan télé ba seen kër amul télé <laughs> ça c' est de c' souvenir mais lu ma mën a jàpp dafa mel ne dafa développé si yow beneen approche bu ñuy wax approche différentielle mais maanaam doo répéter man man beneen approche bi laay nekk c'est-à-dire que bu ma dundee quelque chose damay bëgg am beneen beneen expérience bi puisque j'ai vécu dans un monde je dirais corseté qui m'a donné nag beaucoup de rigueur beaucoup de discipline loolu moo tax ma nekk li ma doon mais j'ai toujours envie aussi d'explorer autre chose par exemple mes enfants tey dama leen di bàyyi mais la totale liberté mais vraiment totale liberté de faire ce qu'ils ont envie de faire mais parce que peut-être que j'ai vécu l'inverse mais peut-être aussi bu ma màggee que yooyu day am boo màggee peut-être que dinaa ñëwaat à mon éducation de départ parce qu'on dit qu'on revient toujours mm-hmm. à sa première éducation est-ce que ça dérangeait dans le cas en politique euh, par rapport à Rewmi parce qu'on va en revenir certainement sur ça est-ce que affaire boobu dérange na justement par rapport à la répétition d'un certain de choses alors que yow approche bu mm-hmm. c'est le renouvellement quasiment en permanence totalement moi je suis dans la perpétuelle remise en Euh, dama bëgg toujours loo xam ne bu ma koy def bëgguma am impression que ne dafay diis dama koy bëgg def avec beaucoup de plaisir te dinañ ci ñëwaat loolu moo tax benn moment ma jóge réew mi parce que sama vie ay cycle la man je je m'ennuie très vite je m'ennuie très bu ma nekkee ci benn affaire nii def ko defaat ko defaat ko dootuma gis sens bi j'ai envie faire autre chose moo tax sama vie yëpp ay cycle la ci côté professionnel noonu la mm-hmm. d'habitude dañ naan man doo yàgg ci dara et cetera parce que je m'ennuie moi je suis tout le temps à la recherche de ay challenge yu bees moo tax je me réjouis très peu c'est peut-être un défaut je me réjouis très peu de mes succès <laughs> je suis pas quelqu'un boo xam ne bu ma wala ma am benn affaire damay kontaan parce que dès que am naa ko rek après je suis passé à autre chose bon maintenant c'est pas valable en tout je suis resté à la fidèle à la même femme euh, <laughs> bon donc là j'ai pas envie de changer non maa ngi doon xaar rek nga bañ a def précision boobu moom boobu moom boobu j'ai pas envie <laughs> parcours professionnel bi avant ñuy ñëw euh, ci mhm. directeur général SONES bi nga doonoon parce que mhm. dinañ ci waxaat ci bu ñuy wax ci yorinu ndox mu Sénégal euh, bi may lire livre bi gis